waaw mën ngeen ko dugal ci biir. moom it ñu ngi koy sant ndax euh, bi ñu ñëwee ba tey maanaam euh, yendalul fanaanalul wax naa ko léegi yendalul fanaanalul bu ko defee na ko waat di waat yëpp ah moo moo sama doom Lamine nag dañuy nangu mbir yi ci ñoom mbir yi. <laughs> <laughs> ak euh, ak bu Cheikh Ibrahima Diaw. waaw damay dañuy gone yi nga xam ne ñoom laa bëgg nañu jiit jiite jeunesse su région bi yëpp. waaw ci Hizbul Haq nag parti la vérité. bu ko defee nag bu ñu demee ba ñoom ñu reprendre seen liggéey nag man ñu bàyyi ma ci sama révolution gis ngeen col gi col gi waaw jamono day ñëw da ngeen di gis may maajloo ay chinois jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. waaw loolu moo tax nag ñoom laay charmer. chinois yi ñoom lay charme waaw chinois yi lay charme waaw xam ngeen ne bis bi bisu mbégte la bees na wala beesu jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Bamba jarna tàng tàng Bamba jarna tàng tàng ndaxam jarna tàng tàng Bamba jarna tàng tàng Bamba jarna nangi nangi Bamba jana nane maylin Bamba jana nane Bamba jana nane wallahi Bamba jana nane Bamba jana nane wallahi Bamba jana nane Bamba jana nane Bamba jana nane nane Bamba jana nane nane Bamba jar na jàngi jàngi. waaw waaw. Bamba na jàngi jàngi. Bamba Bamba Janna dange dange. Bamba Janna dange dange. Bamba Janna dange dange. Bamba Janna dange dange. Bamba Janna dange dange. Ata anaba. Bamba Janna dange dange. Let's go!

Bamba jar na Bamba jar na tànge tànge Bamba jar na tànge tànge Bamba jar na nange nange Bamba jar na tange tange Bamba jar na tange tange Bamba jarna nange nange Bamba jarna dange dange Bamba jarna nange nange Balan balan Bamba jarna Balan balan Alinebu Alinebu avancé na. Bamba jar na dangi dangi. Nuuru si boori. Bamba jar na dangi dangi. Bamba jar na dangi dangi.

Tamba jana dange dange. Aywa. Tamba. Tamba jana dange dange. Tamba jana dange. General Tamba. Tamba jana dange. Bamba jana dange dange. téléphone Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi